parrainage bi nay wax ne bi li tax ñoon di ko sénégalais dara warulu ko lu du éliminer li nga xam ne mooy ay candidat maanaam ay kàcc la daal maanaam lii nga xam ne mooy parrainage bi ay caaxaan la ndax ñi nga xam ne sax ñooy waa CEDEAO waxoon nañu ne parrainage bi du dara nañu ko supprimer waaye nag gars yi dañoo lànk kandaare bañ koo dindi te loolu nag dañ ko war a moom Abdoul Mbaye xëy dañu xibara nañu lu jëm ci wàllum liste benn bokk yaakaar wàllu ak yeewi ñëpp xam na ne bu ñu àndee ci diwaaru ndakaaru dañuy gagné yéen kaay gi di exclusif journaliste bi di Pape Alé Niang moom ci lu jëm ci liste yeewi bi ci département bu Dakar nee na ay complot moo ci am ndax na ñu wër Khalifa Sall ñoo xam ne neexoowuñu ak Barthélémy Dias joxar bi na baaraamu tuuma entourage Khalifa Sall yéen kaay gi la mu ca xamle ci département bu Dakar nee yoo xam ne bu dee moo ci ama dañu ko war a ngir na wut élection yoo xam ne yu ànd ko dal lay doon journal bi di Vox Populi Alioune ak Ndiaga ñoom ànd ñu benn yoon ci lu jëm ci wàllum parrainage bi ndax nag Ndiaga Sylla nee na dañoo war a bàyyi électeurs yëpp maanaam kenn ku nekk voté librement tànn ki nga bëgg a tànn moom Alioune Tine nee na lii nga xam ne mooy parrainage bi dafay firnde la maanaam ñàkkuk démocratie gi nga xam ne am na ci réew mi yéen a kaay gi di Rewmi Quotidien Saliou mi nga xam ne moom la ñu doon joxar bi m tuuma ni girawal moo ko def ci liste Yewwi Askan Wi ci département bu Dakar Saliou pata pataaral gamu nekkoon génn na ca nee na moom déposé wul liste Yewwi Askan Wi ci direction générale des élections moom Saliou Sarr nee na loolee dafa bëgg nag mu leer ci bopp askanu Sénégal gi yépp moom Saliou Sarr nee na déposé wul lenn te sax mënu koo déposé ndax moom nee na du mandataire li ñu koy waxal nag ay sos la te nag soo muy tuulee maanaam nag dana jël mbir mi yóbbu ko fa mbaax na doone benn yéen a kaay gi di vrai journal na nag tey la nag bis boo xam ne boo muy tuulee maanaam njombe mën naa am ndax tey ji ñuy létti Yewwi Askan Wi ci Dakar wala maanaam dañuy rejeté seen liste bi wala nag ñu daal di koy validé yéen a kaay gi de Le Quotidien ci xëli mag Madiambal Diagne nee na jafe-jafe yi ak problème yi commencé na diggante Khalifa Sall ak Ousmane Sonko moom journaliste bi Madiambal Diagne ci Le Quotidien nee na nag Khalifa Sall bi coow li ne cobbay dafa jël téléphone am woo Ousmane Sonko na ko Ousmane Sonko jamono ji rek caaf ma ngi xëma il faut nga woote nag ab mobilisation Ousmane Sonko la mu tontu Khalifa Sall na ko nag bay boo ngeen jëm ko lijjante maanaam daal giraawal yee kunu rek ñombe yii nga ni def ngeen ko bay di woo Ousmane Sonko Ousmane Sonko lànk kandaare bañ koo wuyu journal bi nee na Khalifa moo woo keneen na ko wool Ousmane Sonko journal bii di la Quotidien nee na en tout cas ambade Sall mbir moomee tamit Barthélémy Dias ci lool yéene kaay gii di Vox Populi nee na néewaa bu nekk ci réew mi te ay jafe-jafe Pape Djibril Fall ak coalition bii xaw servir la jamono jépp ci xoogu mag moo fa ndax na conférence de bi nga xam ne doon na ko defa maanaam nag a a ci parrainage yi nga xam ne dañoo wax ne dafa daw ak mooma te am sa doso Sidibé jox ko ko weddi na ko waaye nag am na kenn ku bokk ci coalition Pape Djibril Fall bi te nekk Jurbel fekke woon na conférence de presse bi Pape Thiam la tuddoo moom nag nee na am sa doso Sidibé wax na dëgg te nag Pape Djibril Fall mii dafa bëgg a jàppee mag boppam buur te du buura yéen a kaay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu benn bokk yaakaara seen liste bi jamono ji coow am na si yeewi askan wi ci diwaanu Ndakaaru seen liste na ci en daal ñaari liste yi ñoo ngi wax giraawaal yi lu jëm ci wàllum trahison corruption wàllum wor wàllum pagaay wàllum ñàkk xam na wàllum ñàkk dal journal bi nee na lii lépp am na ci te nag nee ñu xalifa Sall digganteem ak Barthélemy Dias jamono ji dafa am dualité ndax nee nañu meeru Dakar bi di doomu Sampol Dias bi xelam nag dafa nekk ci présenté wu ci élection présidentielle 2024 coow li foofu la commencé journal bi nee na ñi nga xam ne ñooy waa yeeyu askan wi ñoom nag nee nañoo Benno Bokk Yaakaar mënuñoo bokk ci élection yi nga xam ne moom la ñu dëg ma la ndax nag conseil constitutionnel lu mel ci la nag rëkkale woon ki nga xam ne mooy Malick Gakou ndax ndax ci élection présidentielle 2019 conseil constitutionnel dafa waxoon ne Malick Gakou andil 62 820 ci ay parrain Malick Gakou andi 67 842 conseil constitutionnel woo Malick Gakou ba mu ñëw mu ne ko yow liñ la laaj ci ay parrain da nga koo ëppal kon munoo bokk ci élection yi journal bi nee na loolee nga xam ne nag moom la ñu tegoon Malick Gakou la ñu war a teg ñi nga xam ne ñooy waa benn bokk yaakaar yéen kaay gi di wal fajiri ñu xëy fekk nee na nag Macky Sall ci boppam ji ni ma ko gisee dafa bëgg a def beneenu mandat ci ci réew mi waaye nag na ko leer ne am na ay sondage yoo xam ne lu toll ci soixante-dix-huit pour cent ci sénégalais yi ànd ñu benn yoon ci ñetteelu mandat te nag Macky Sall bu fi bëggee def ñetteelu mandat bëgg ngar daajoo réew mi te loolee munuñu ko nangu tey munuñu ko nangu laka moom Mamadou Lamine Diallo nee na Macky Sall lu jëm ci wàllum politique économique bi dasee lajji Macky Sall xamu ci dara lu jëm ci wàllum créer nga xam ne tamit mooy ay emploi ay kàddu damay nettale yéene kaay gi di réew mi ko di jee nee na fan yi nga xam ne moom lañu ñu génn jàngalekat yi dañoo yokk seeni salaire waaye tamit ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci lu jëm ci wàllu wér-gi-yaram gi dañoo yokk seeni salaire moo tax ñi nga xam ne ñooy agent eaux et forêts yi ñoom tim nee na ñu dañoo bëgg ñu yokk leen seeni salaire yéene kaay gi di estat xëy di ñu xibaar naan ñu Bamba Dieng doomu réewum Sénégal bii maanaam nag moo dugal bit bi gën a rafet ci championnat bu France ci saison 2021 bi 2022 société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo doon may revue de presse